parce que ils attendent mhm. ce qui attendent des prébendes on les comprend mais nag bu nekk fii naan Sonko violent Sonko et ceci Sonko n'est pas et cela parce que Sonko n'est pas seul mhm. quand tu regroupes la majorité des électeurs sénégalais mhm. t'es pas seul nañ bàyyi sen tiaxani makina Macky na jaarale ci yoon il n'est pas candidat wut candidat Sonko est candidat Khalifa Sall est candidat mhm. Aïssatou Diop Sall est candidat bu ko neexee mhm. Mamadou Goumbala est candidat mhm. Sonko nag ah, man li mu def ci Mimi Touré félicité naa ci vraiment xeex période de day am période jàmm day am français Allemagne, allemand yi xam nga ñaata la yoon lañ xex ci adina fi mu ne le tandem européen ñoo ko def ba def éco ba def li ñu def bu ñu continuer rek di xex 1870 presque guerre mondiale

waaw publicité bi ñuy xoolaan publicité te dal di ñëwaat ci émission waxtaan waxtaañ mm-hmm. Oui, d'accord léegi si waaw mu préparé <laughs> préparé. ne waxal après na préparé woo euh, euh, ah. euh, bëgg na dugg papa. mais papa li nga wax xam nga dama dama euh, li ça ne fait plaisir à personne et que euh, d'une manière ou d'une autre il faut que tok am waxtaan. Mm-hmm. waaw ndax euh, li nga wax nga am solo ndax mu erreur ne ku nodd na mm-hmm. donc mais est-ce que tamit euh, opposition bi warul xol forme de de lutte bi ndax tay euh buñu bëggé chaque jour marche chaque jour meeting chaque jour manifestation euh, euh, euh, est-ce que li muy jur dina gënal nit ñi. mais du xam nga lu muy jur bala nga koo gis ko. Mhm. je me rappelle. ki ñi jël cité kër góor gi waa dugalal Bamba. Mhm. ne len munu len fe jaar comme niñ ko defé président Ousmane Sonko ci suba ne ko sa dom du jang sa dom du fi genn do genn mais mom yorul yatta dara dafa wat këram mais parce que amna un haine enal hainal wala nga enal ko ki mari nek nga nekk gendarme wala lu ba fa yem te senegal di Macky Sall nañu delloo siwaat seen xel man li mooy li nga xamante ni man man maa man euh, vraiment fi ma egg mënu ma expliquer dara gis-gis ak ñàkk gis-gis kenn du ko rafetlu ti nit di ko dóor lacrymogène ba poojam di dagg ba mu tëdd nii ci clinique suma mais quand même ban réew la ñu nekk bu fekkee ni ñu leen sant ñu leen ko sant te nekk ci kaw nañu wax ak bés dana ñëw nag soppi dana am changement dana am. incha allah est-ce que da ngeen di maintenir manifestation bi ngeen xam ne woote ngeen ko tey. waaye manifestation bi xam nga li li li président Sonko wax bu ñu jàpp ne fii la rek ci kër góor yi dañ ni manifestation bi nationale la tey ñun mënoon. ko autorisé nañ feneen ak feneen. mais kon yow mënuloo tey géej ak say loxo da ngay sonn rek parce que sénégalais yi ñoo doyul sëkk ak barke. yow boo tere ñu manifester wu kenn tamit te mu wóor la ne la au niveau international yëg nañ ñu xoli Sénégalais yi raxas nañ ne ci ba set mais tere boobu du amul njariñ yow fexee rek bu boo génne moom na génn Sonko mu ngi génn ay takk gerte di ko kale na génn population bi wan ko ne ko yow du yow doonatul yow te pare nga te day yàgg di pare incha allahu taala jërë ngeen. ban message ngay jox jeunesse nga xam ñoo nekk Dakar tey bëgg a génn pour manifester. non message ma leen jox jeunesse bi seen bopp. wane nañ seen bopp démb wane nañ ko bërki démb dañ ko yàgg di wane mooy ni doyal nañ ci régime bi fi nekk ak lu ñu mënti coûté nag doyal nañ amul message message bi ñoom ko gën a xam li parti wax démb moo ci nekk tollatuñ ci jamonoy wax jamonoy jëf lañu toll wasalaamaaleykum imam xalifa